enjeu yi dafa dépassé ay xaalis ak ay poste ak looy dundee looy lekk kon du ma jógee France gi naan dama dem nekk ay député enjeu yi moo tax ma ne damay dem nekk député mais musuma taxaw ne damay nekk député musuma koo postuler musuma demandé benn post mustam suma jógee tey ba dama dem ci assemblée bi déw ma fa pour di doxantoo ko toog tàccoo ko ree de assemblée bi suba bi assemblée bu mësta Sénégal lay doon motax il faut que ñu tànn ñu fay dem enjeu yépp fa la nek la wara xew Sénégal gi soppiku suba du ko ci présidence bi ci palais bi de ci assemblée bi lay palais lay soppikoo ko motax Ousmane Sonko na def très attention il y a beaucoup de demandes ku nek bëgg nek député waaye nak na def attention de il faut qu'il fasse un bon tri tànn bu baax gaynde yi war taxaw ci fit ci rhétorique ci communication ci procédure ci technicité ci comprendre ci xam état xam lépp taxaw bu ko deful ñii kenn du leen àtte xeex bi ñuy xeex lañu bëgg mu prolonger wu ba dugg dans l'hémicycle compétence da ngay am compétence am loyauté manam da ngay am loyauté manam da ngay am fidélité ci ci xex bi ñuy xeex bëgg ko mu nekk sa nga xam ne yow laa bu waaye am engagement doo ci bañ tëdd ci bàmmeel yi jàpp tëdd ci kaso yi tëdd ci bàmmeel yi nga yemale ba noppi nag am fit courage boo ko deful duñ fi àtte kenn léppay naxasaay ñu ne ñëpp a yem parce que réew dafa am ñoo xam ne il faut que ñu sacrifié wu pour Sénégal baax ñu bari bëgg sacrifié wu fi mu mais am na ñoo xam ne ñoom ay dañoo war a sacrifier pour Sénégal baax man man pare naa man pour sacrifier pour Sénégal baax man je suis prêt à me sacrifier laaj ma joxe ko pour Sénégal baax au moins yeneen génération yi ñëw ñu mën a mën a dund Ousmane Sonko wax na ko sànq mais dégluwu leen ko am na benn mot bu mu génne xaw ma ndax kooku ki dégg ci yéen am na benn mot bu mu sànni mais ñu bari dañ ko déglu mais duñu ko dégg yàgg naa ko wax am na benn moo bu mu wax ci biir phrase am mais ñu bari dégguñu ko le mot altruisme dama ko yàgg wax nous avons besoin des patriotes altruistes mooy nit ñoo xam ne dañuy sacrifier seen àdduna yëpp pour askan yu baax waaye ñoom du ñu def dara pour seen bopp bëgg ñu dara dañuy am mbégte ci di dimbali askan yu di taxawu askan yu ñoom loolu la leen neex te duñ ci xaar dara

pourtant mais ñom dem assemblée mais duñ def débat kenn yeen ñi wala voter voté ñom tan nañ Sénégal nak président Ousmane Sonko mom xamna enjeu yi jëm fi Sénégal jëm suba j'ai confiance en lui et je pense man sama bonne foi ak sama yéene ci je pense que Ousmane Sonko ak ak sama je pense que suñu yéene dañu dajé inshallah je suis optimiste. amna ci njort bu rafet inshallah allah nañu rafet njort rek yàlla baxna su fekkente ne amna lenn lo xamne ne war naa koo joué ci li defar Sénégal su fekke yàlla dogal nako inshallah rabbi dina bok dinaa ñu dem ci assemblée su waaye su fekke wuruma jouer dara ci rôle du Sénégal pour Sénégal bax duma fa dem. j'ai le Sénégal au cœur voilà je l'ai prouvé je l'ai éprouvé je n'ai plus rien à prouver voilà j'ai tout prouvé j'ai tout éprouvé Non, non. kon man sama jaan wàcc na li ma waroon def yëpp xeex naa ko ba ñuy xeex xeex naa ba ñuy cotiser cotiser naa ba ñuy gatsa gatsa gatsa naa ba ñuy fal fal naa ba ñuy war a tànn pour dem député yi dugal naa sama candidature pare naa ci maa ngi déglu amatuma lu ma war a def di déglu kilifa yi j'ai manifesté ma volonté mon engagement ma détermination à servir loyalement ce pays à apporter mon expertise, mon expérience, mon savoir et mon savoir-faire au service de l'intérêt général à l'hémicycle où tous les enjeux du futur de ce pays s'y dérouleront. C'est à l'Assemblée nationale que tout va se dérouler. Voilà légui nak li président wax un ci détournement milliards yi ñu sàcc ci réew mi yëpp ñu def ñu ci à part les DG c'est des ministres le président de la République Macky Sall ñu haute trahison la c'est la haute cour de justice moi leen atté haute cour de justice il y a des magistrats et des députés qui seront membres de la haute cour de justice qui vont nous ñooy atté ñi nous ñii wala ñoo de dañ tëj leen à perpétuité réclusion criminelle lañ leen war a tëj seen seen ngir dund seen ngir dund lañ leen war a condamné tëj ci kaso bi ngir dund kon il faut que bien sûr les la ñuy confisquer la alal yëpp ba perpétuité à vie à vie quand Nous taxaw une majorité qualifiée 150 députés minimum une majorité de quantité mais une majorité de qualité dañoo war a am député qui doy doy ci ab lim waaye doy ci xarañteef doy lim bu bari waaye doy ci xarañ xarañ gu mat sëkk su ñu ko amul du sotti dañuy wax rekk ñu ne ñëpp a yem est que loolu leer na lii mooy li nga xam ne mënta ñàkk candidature jërul pétition sama candidature jërul pétition jërul dara man sama pétition pendant sept ans huit ans maa ngi koy def ak yéen pétition mooy li may wax ak yéen li may def li may pétition jëlu pétition parce que jëlu ko ku pétition pour kan on ne peut pas il ne faut pas forcer le président le premier ministre Ousmane Sonko il ne faut pas forcer la main ni à Diomaye ni à Sonko ñom ñi décider bu len forcer sen main ay njiit lañu bu len kenn contraindre vous pouvez l'exprimer mais pas ay pétition yoy jëlu ko on n'a pas pétition ki nga koy defal moy kan moy ki moy ki lot wala ki kenn xamul man xam ngeen ma yag nañu ñom xam nañu ma Diomaye xam nañu Sonko xam nañu ma jëru pétition jëru ko il faut pas aussi donner l'impression de vouloir leur forcer la main. On ne leur force pas la main. On ne force la main à personne. Il faut leur laisser avec leur propre conscience. ñoom li def ci rew mi ñom man xam naa ko maa koy wax li ma def ci xex bi ñom xam nañ ko légui nak dañu xol ba xam mais ñom li def man xam naa ko maa koy naw di wax li may def it xam nañ ko ñom donc jërul pétition jërul dara andu naw la rek ak bëgg Sénégal ak defar ko kon ñu ngi leen di sant ci seen taxawaay seen mbëgte seen mbëgg gi ngeen bëgg ma teewal leen foofee loolu yëg naa ko ci sama xol xam naa ko bu ko yàlla dogalee dina am su ko yàlla dogalu du am incha allahu rabbi waa jërul pétition jërul dara ndax njiit tamit nag doo ko forcer wala ngay mel ne ku koy bëgg a njatt ku ko bëgg a loolu kenn du ko def loolu moom d'accord ndax man mi nanguwu man du ma ko nangu man kenn du ma njatt kenn du ma forcer nanguwuma ko du ma ko nangu kon nañu rafet njort ni ma ñoom li ñuy doxal ba naw ko ba di ko wax di leen si jàppale ànd ak ñoom njot naa ne li may def bu bu ci njëriñ amee ñoom war nañ koo xam te comme nee nañ Sénégal la ñuy liggéey te dañoo bëgg Sénégal te li ñuy wax dëgg la ci ñoom bu fekkee li wax dëgg la ci ñoom Diomaye ak Sonko li ñu nekk bu fekkee dëgg la ci ñoom te man ñi ma jàpp li may def dëgg la te ñaar yooyu yëpp ma jàpp ne lu ñuy defal Sénégal la bu fekkee loolu lépp dëgg la loolu mënut a naxasaay loolu mënut a nul man lool laa gëm samay conviction la man dama gëm yàlla aussi nañu nañu wax suñu bëgg-bëgg wax lu tax ñu bëgg ko wax lu tax ak la ñu fay def waaye nag am nañu attitude yi am nañ compétence yi am nañ yéene bi am nañ yëpp loolu kenn ku ne am nga sañ-sañ bi waaye nag foofu nga yem waaye dogal bi nag ajuwul ci yow ñoom ñi war a dogal loolu seen wàll na nañ leen ko bàyyee buñ ñu leen forcé bu ñu pétition bu leen chantage ñu def loolu d'accord ci mus waxoon naa la ko ci live pas de chantage ñoom ils sont suffisamment outillés xam nañ ñan ñoo war a dem ci assemblée bi ou pas voilà ñoom ñoo woote honnêteté ñoo woote jub jubal jubbanti loolu man loolu man ci laa màgg loolu man loolu man ci laa juddu loolu moom xëy na ñoom dañ koo jëmale waaye man man loolu man dañ ma cay fekk loolu ñuy woote jomaay Sonko man dañ ma cay fekk <laughs> woo ko woo ko bu dajoo gestu la kon kay laabi soo war naa mën jub jubal jubbanti loolu man loolu ñoom man lañ ciy dimbali man mii lañ ciy dimbali kon Euh, dinaa ci dikkaat gën koo faram-fàcce incha allah rabbi di wax yéen ñëpp ngeen nekk ci niveau de débat boobu lii la président premier Ousmane Sonko bëgg président Pastef lii la pré lii la président Bassirou Diomaye bëgg gis ngeen démb à la tribune des Nations Unies son discours historique mu taxaw wax ko fa sur lan jub jubal jubanti jub jubal jubanti bi moom moo nekk fépp la mu wax Nations Unies ba àdduna bi yëpp di ko coow ci wax joo xam ne ci dëggu ci tegu ci yoon ci loo xam ne dañ ciy teg baram kenn du ko layam layame ñëpp naw la ko muy un discours magistral le président son excellence Bassirou Diomaye Faye Ousmane ko génn tey indi un un exposé clair net précis et de vérité devant le peuple sénégalais ñaari ñaari dis ñaari posture yooyu bu Diomaye aux Nations Unies bu Ousmane Sonko tey ñaari posture yooyu euh, man ci loolu laa nekk man ci loolu laay dund ma ñëw tey réew ko faram fàcceel donc tout se tient ñi war a ànd ñoo war a ànd bu ñu bëggee am ndam waaye bu ñu jëlee ay làppato yoo xam ne la yàlla xam doon du ñu am ndam de parce que c'est pas une question de seulement volonté c'est pas seulement une question de volonté man nga bëgg am yéene mais da ngay man am nit ñi nga war a am li gën a jafe ci Sénégal nag nekkul falu de falu moo gën a yomb Sénégal fexe ba falu moo gën a yomb li jafe dëgg dëgg dëgg dëgg Sénégal Sénégalais yi bari xamuñu ko mais Ousmane Sonko moom xam na ko ak Diomaye

entourage bu faire ba am les ressources humaines de qualité dans l'entourage Moi, li gëna jafé ci réew mi man nga def lu né ba falu waaye li jafé moy fexé ba am les hommes qu'il faut et les femmes qu'il faut aux places qu'il faut pour mettre la machine en marche lolu mooy li Son Sonko aujourd'hui est soumis à cette épreuve ainsi que Diomaye li gëna jafé moy lolu c'est un exercice périlleux hypothétique de faire un bon casting, d'avoir les hommes et les femmes qu'il faut aux places qu'il faut. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. C'est un challenge, c'est un défi. Parce que Réumi, faut day metti tek mu <laughs> bon bref des fois bari ñi waaye li jafe mooy am équipe boo àndal pour liggéey loolu mooy jafe ak a jafe kon mbokk yi lii lañ newoon naa leen ko jukkil tey faram fàcce waatal leen ko dinaa ci dikkaat damay bañ live bu gudd mais dinaa ci dikkaat deuxième partie lii première partie bi dinaa ci dikkaat deuxième partie gën koo toj gën koo faram fàcce indi ci yeneen ak yeneen yoo xam ne damay bañ mu technique parce que bu technique yi ñaare du intérêt sénégalais parce que bu technique Ousmane Sonko sax xam c'est un débat extrêmement technique parce que c'est des ratios c'est des données xam nga dafa laal ci finance publique laal ci budget laal ci déficit eh, yooyu yëpp sénégalais yi xamuñu ko mais c'est des débats yoo xam ne dañu bëgg maintenant mu nekk des débats publics nous avons wax ci plateau yi dem ci plateau yi di def des débats comme ça dem ci assemblée bi def ay débats comme ça di yéeg niveau bi di expliquer sénégalais yi comme, comme, koom fu muy jógee naka lañ koy dépenser fu muy dugg naka lañ koy saytoo yooyu yëpp dafa war a nekk débat yoo xam ne dafa war a ñor Sénégalais mooy débat de haut niveau yu président Ousmane Sonko bëgg di wax ñu préparé wu na ñëpp jóg na ñëpp taxaw ñu futteeku def campagne bu musta am ci réew mi pour am majorité ndax bu ñu amul majorité lii ñuy wax yëpp jeex na tàkk ñoom ñi ngi jóg taxaw de génn seen milliard pour campagne pour lan pour am majorité ci assemblée bi te mënta nekk waaye loolu lañ bëgg pour jël gouvernement bi fal seen premier ministre fal seen i ministre dàq suñu directeurs yi DG yëpp fal seen i lii ñu bëgg a leeral ñu lëndëmal ko di voté seen budget continuer seen sàcc gi Ousmane Sonko dem toog fu ne gouvernement bi daanu jomaay nekk ci pale bi di dem jàkkaak ñëw toog dootul ma dara ndax boo amul gouvernement mënoo gouverner ñoom loolu lañ bëgg am majorité des députés nangu assemblée bi voté seen budget daaneel gouvernement bi jël tànn seen premier ministre Diomaye nommé ko par force parce que loi ko wax ñu tabb seen ay ministre ñoom opposition bi dàq DG yi ñu fi nommé yëpp nommé seen i DG tegaat seen i nit di doxal bu ñu amul majorité lii may wax moo am Diomaye rek fi des Sonko day dem ministre yi daanu gouverneur euh, DG yi ñëpp ñu nommé woon ñëpp daanu ñoom ñooy ñëw ñoom opposition bi sàcc yi ñoo ñëw toogaat bu ngeen leen joxee carte ba ñu toogaat Sénégal dootul baax ma dégg damay damay damay arrêté lépp ba leen Le pouvoir n'est pas au palais, le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Comme. Euh, dama ne demande damay tëj boo xaaral ma ligne pour 5-10 minutes on me signale d'ouvrir la ligne bon allez pour quelque mais une deux minutes hein, pas plus hein. une minute deux minutes pas plus. ah ci sëñ bi vite fait. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. salaam. te sant naa yàlla bu baax. yal na yàlla nangu cant gi te nga yàgg sant. amin bi ma àddoo nga àddu rek moom sama xol dafa sedd guy. yàgg na fibre lool yàgg la topp lool. dëgg la. firnde mooy maanaam bi ngay bi ngay di live di wax. diggante manam politiku Sénégal ak marabu yi. dëgg yalla yàlla na la si ndam. dëgg la ndam bi day soog a door rek te assemblée da nga fa am place bu baax a baax a baax a baax a baax a te man <laughs> ma yéene lako bu baax. dëgg la amin yalla yalla nangu waaye bu baax a baax a baax baax te ma yéene lako bu baax. dëgg la amin yalla yalla nangu waaye ndax man bi may commerce fofu ab naar dama na ko kaay ma fay la sec mu ne ma non non du ma jël sec ndax sama xaalis du dem banque. c'est ça ay milliards naar yi nekk foofu tey grand bëri na naar yi nekk foofu seen xaalis du dem banque. li ngay wax yëpp xam naa ay milliers de milliards naar yi. exactement loolu lépp day jeex bu sab yàlla loolu lépp réew mi moom ak seen la rek réew mi li fi nekk ci alal du jeex benn Sénégal warut a tukki Sénégal yëpp Sénégal lañu war a toog. réew mi li fi nekk ci alal du jeex ay politiciens ñoo ko sàcc di ci may ñenn ñi. maari di détourné tubaab yi yóbbu loolu lépp day jeex loolu lépp xam nañ ko moo tax bokk na ci li tax ñu bëgg a futteeku dem ji tay la suñu ñun na réew baax am naa yàqin bu wér ne assemblée da nga fa taxaw incha allah si kàttanu yàlla ndax yàlla baax li waral moo wax loolu mooy ndax ñi ñi ñi jiita réew mi tey di wax jub jubal jubbanti mhm. waaw allo waaw attention mu micro ma ubbi sa micro ubbi ko dañ dañ ko tëj laa xawma ko tëj allo sama sama xel xaw naa daal foofu dëgg la ndax biñ jëlee ko mel ni Jean Baptiste Ditine mhm. en général ñu yóbboon ko Russie indiwaat ko def ko ministre de l'intérieur kon nga xam ne ne kooku xam na secret réew mi mhm. ñu ñu jël ñu jël général Diop moom it denko ko lu melni ministre des forces armées kon ñaari mandar ko yoy rek manam dalay won ni ñi bëgg nañ liggéey réew mi ku melni ni yow it manam li ngay li ngay e, e, li ngay expliquer fi mu nekk nii loolu la assemblée bi soxla te ku melni Ousmane Sonko dafa soxla ci ci ci yeen lu mel lu lu lu bu si amone 10 mbala 11 rek alhamdulilahi rabbil alamin da nga ni tëggaat loi bo xamne ni bobu da fay concret te da fay fiable yàlla baax na ñu ñaan rek. te man bu la yàlla yóbboo assemblée te am naa ci yàqin bu baax a baax baax projet loi bi ma bëgg nga dugalal moom mooy maanaam képp ku nekkoon maanaam ci régime Macky Sall. Mhm. dañ leen war a condamné ba pare tëj leen tëj bi mooy. Mhm. ñu defal leen maanaam ay mbubb yu xonq kilot. Mhm. ak faaru mbaam ñuy xëy di bale mbedd mi. Ah. six heures du matin quatre heures ñu dem tëri ñu bindal leen maanaam valeur de la république. travaux forcés loolu loolu moo indi maanaam. ak ak ak dignité. incha ak si su ko defee bu gis lañ dañuy wax ne eh, lii de fii di ko ku defati lu mel nii rek lii moo lay fekk fii. ñëpp su boobaa jubal nekk nit ñu honnête. dëgg la jërëjëf jërëjëf. yàgg naa laa suivre mais yëngu ñu bëri macha allah yal na yàlla guddal sa fan. wéral jërëjëf jërëjëf. kontaan yaa xam ne yal na ko yàlla defal sama xol sedd na guy. fii la fii la ëpp yàlla wéral bu soobee yàlla incha allah assemblée ba da nga fa taxaw. jërëjëf du xaalis moo tax nga taxaw mais maanaam comme ni nga ko waxee. liggéey réew mi moo ko lépp yàgg naa la déglu macha allah. amal jàmm bu baax. macha allah merci beaucoup merci jërëjëf xool sedd na jërëjëf

parce que waxuma la man mais man ak samay moroomi moroom da nga yeeju bëri nga lii ngay def hmm. bu ko mës a bàyyi hmm. bu ko mësa a bàyyi te bu ko xeeb hmm. man si mosuy man sa place sax man man assemblée ngay wax mais man pour man ñoom Sonko dañ la war a teg sa kanam si wet seen wet conseil nga war a doon waaw parce que di na li liggéey ci réew mi billaay xamoo ko man dama la yàgg suivre depuis trois ans maa ngi lay suivre ndeysaan wax nga dëgg bañi ñi ba ba ñi ba ñuy tëj ba ñuy tëj sonko non ñu naan joma yee ñu ba nga naan léegi damay complot and ak makki mhm. yépp du sa lay mhm. benn du mako ak wax dëgg la yag na damay man damay wax ni dama kay partager nit ñi naan leen déglu leen Akhenaton déglu leen Akhenaton parce que da ngay yeen gis nga li bu ko xép gis nga li nga defal ci rew mi mo hmm. ëpp nekk député ñom xam naan du tax ñu lay xex les marabu yi ci la bok influence marabu yi ci lañ bok mais dara. deug la deug la li ngay dindi mo upp hmm li ngay dindi ci rew mo upp bu ko mësa mm-hmm. bayyi bu parfois da nga nan dina bayyi dinaa bul mësa bayyi live yi. inshallah deug la parce que kenn moy dem ba ci réseaux sociaux dal si deglu ko xam li ngay wax. deug mm-hmm. deug ku ko deg dina ko xam. deug la man damay deglu live yi bari mais man limay xam sa live. hmm duma ko wax sax dama nan pat di sensibiliser gis nga ci taawu Amadou pabi man daaw musuma voté mais jour bu mu la njëkkee déglu nga yuuxu dem leen ngeen jël seen carte mmh. jour boobu laa dem ñu jënd sama carte électeur génne ko ñëw voté macha allah macha allah fi may liggéeyee noonu gis nga fi may liggéeyee côté bayax bi ngañ ngañ jëw moom peut-être fert na lu bëri la nga xam ne man ku ñëw daf lay sensibiliser lébu yi ku ñëw a sensibiliser bu leen voté macha allah parce que Amadou Ba bëggul Sénégal bëggul Sénégal wallahi bëggul Sénégal dëgg la sensibiliser ñu bëri wax leen leen dëkku fi. expliquer leen enjeu du gépp ma expliquer leen. sa laay bu tout le temps dama xam ni ñu daan naan ana élève ak Akhenaton man leen maa ngi nii. pour te pourtant te pourtant dama def philosophie. est-ce que loolu incha allah man man ma déggee nga wax dama ne yow si watu ñoom sonkoon parce que gis nga réew mi. dafa uh-huh. am lu bari lu fi war a dañ te dañu fi te loolu tant dañu fi Sénégal du avancé. du avancé dëgg la dafa am lu am dafa am dafa am lu ko gaar tant que daaj ji wuñ ko du réew mi du dem loolu moom ak amu ma leer. yàgg ko wax ay pont lañ ko daat daas. ko daaj réew mi fii li ko téye dama koo xam man pont yi ko téye dama koo xam. réew mi rage kulu bi koy daaj ji man dama ko yor man dama. réew mi sax ba tey ba tey dañoo ñemewul mais suñu hmm. dëggalee seen bopp dañuy dem parce que foog dëgg la lu mu def parce que hôpital yi nit ñaa ngi dee da ngay xool Sénégal benn radiothérapie la am du na principal amul radiothérapie benn radiothérapie am du suñu woo demoon bañ koy toj dama doon jooy am na benn femme ba nga xam dafa amoon cancer bu avancé ba nga xam ne oh, ween yi oh. dafa néegoon biir biir femme boobu sûrement que dee na ah oui dee nga xam ne professeurs yi nga xam ne ñoo waroon balaa ñuy ñëw deux heures trois heures malade dañ leen di xaar hôpital ñu dem si privé yi di dafa metti malade yi dee ci hôpital boo demee dalal boo demee dalal jàmm fu ñu defee radiothérapie waroon nga fa dem ba xool ko fenn moo am muy centre international cancérologie moo am principal amul radiothérapie centre international cancérologie kese moo am radiothérapie foofu ay millions mooy tax nga faju fii baa doole yaa ngi dee ndax cancer te kenn du ko wax xam nga lii autre chose tam mhm. autre chose tam moom mhm. gars yi fu mu toll nii ñu ngi leen di gëmloo naan état bi mënul leen dara seen xaalis yi ñu yor nii état bi mënu ci dara ay avocat yu baax la ñuy jël ñu naan mm. sonko avocat avocat moo gën ma leen sonko bu du woon askan bi at ñi dem ba taxaw ba mag Sall xam dem ba xam ne kii da ko tegal piège amulu Ba mm-hmm. kon mm-hmm. tey jii Macky Sall du génn Sonko ci prison avocat taxul mu génn ci prison kon benn naan ñi fi toog ni avocat bu ñu jëlee avocat dañuy rëccal alal bi ay folo ñoom nag nañ dëggal fii seen bopp li ñu yor yëpp nañ ko nangu delloo ko ci askan bi. lépp la ñuy nangu de bu soobee yàlla lépp la ñuy nangu. nañ waaw loolu askan wi delloo parce que askan bi bi cher na te instant bi ñu mënuñu si dara parce que six mois rek lañ def bu soobee yàlla Sonko wax na ko wax nga ko wax naa ko. doolee jomaay ak Sonko mooy askan wi. waaw. gis nga gis nga Sonko ay avocat am jàppale nañ ko waaye li ko Sonko li ko muccal bañ ko njëkkee jàpp yóbbu ko section de recherche. askan wee génn Sonko lu mu am xeex moo ko ko may askan wi askan woowu nañu nañu taxaw bis bu askan wi tëddee bis bu askan wi téye loxoom ñoom dañ ñuy coup d'état jomaay mais dañ koy coup d'état dañ koy wàcc askan wi bis bu gis nga bu ngeen nelawee bu ngeen nelawoo tëj leen seen benn bët benn bi ngeen xippiku bi ngeen gëmmee seen ñaari bët dañ ñuy coup d'état dañ ñuy teggi lu tax xam nga lu tax mm-hmm. dëgg lañ fi indi dëgg dëgg du ay caaxaan dëgg fu ñu ko mës a yëkkatee yow sallallahu alayhi wasallam ba mu ko yëkkatee dañ koo gée dañ koo xeex dañ ko dafa gàddaay xam ngeen est-ce xeex lan dëgg du koy xeex mbooloo bu ngeen fi nekkee nelaw di yandoore ki di xandoore ki di nelaw bay jomaay la ñuy fekk ci pal dañ koy coup d'état bu ngeen jógul taxaw yéen xam leen ñu ñu ko seeqal sax nañ leen taxaw ñu xeex ak ñii jubbanti réew mi dëgg lañ indi de te ay fenkat ñoo fi nekk àndandoo ndegam ñiy fen ñoo mën a àndandoo waxuñu la ñu indi dëgg jóg leen taxaw hmm. soxna si yow sa wax sa wax ji nga wax dafa ma gëna motiver parce que yow. motiver gis nga fu mu toll nii. exemple tim dama la wax nan man sa wax ji bu duggé ci benn su duggé ci nopp benn nit man amna satisfaction ndax bu ko benn nit déggé rek ay millions nit mën nañ ko dégg benn nit bobu xewu ya dina ko wax. man ma ngi jotali dé man limay dégg ci yow man kay jotal tay bo boo laajoon sama waa kër la xam limay dégg ci yow dama kay transmettre diko jotali ñeneen at di wax say wax motax bu mësa bay deug la mësa bay parce que Sénégal instant bi ngeen si jàpp du baax. deug la ngeen si du baax du ñu bàyyi incha allah jërëjëf kontaan nañu lool lool daañu ko changé incha allah daañu futtee ko taxaw ñun ñëpp àndandoo pour changé ko bu soobee yàlla kenn du mbokk yëpp yow yaa suñu député ñun ñooñu man ñooñ nekk France sax xaw ma leen man yow rek laa xam yow rek laay topp. depuis yow rek laay topp. yow rek laay topp depuis ay bu nii xoola soo gëjee temps yi nga woon nekk woon ma lay seet gisuma la. waaw dama sa live yi di ko déglu di ko déglu ba nelaw Ah, damay déglu ba trois heures du matin damay xëy rek gis sama portable fay wala rek te man laaj bi laa doon déglu. te ni ma koy dégloo noonu laay demee ngeen am ngeen def ko ci xew su ngeen feebaree fii ku Sénégal bu feebar parce que faj bi dafa seer di sensibiliser ni mu déggee noonu laa koy sama kër def mhm. samay ñaan def sama lu mhm. war def yëpp macha allah gàmm yi ngay defoon moom sax day ko def gàmm yooyu at at màggal gàmm yi waaw <laughs> ren waxoon na ma gàmm aussi yooyu yëpp mais <laughs> c'est vrai yooyu yëpp tamit effectivement parce que gàmm goo xam ne jërëjëf kontaan nañu macha allah loolu mooy li am solo en tout cas am naa mbégte lool am naa incha allah yow yow ñu ne man xaw ma leen sax li ngay wax noonu France billaay xaw ma eh. leen at ñeneen ak ñeneen sama morom xamu leen yaa leen gën a suuf foofu kenn kenn xam nga xeexee rek ñoom dañoo ñemewul dañoo dëggalu seen bopp boo gisee lu tax man sama siiw bi lu tax dugaluñ sa candidature mm-hmm. peut-être dañoo ñemewul marabu yi te marabu yi nag tant que ak tant yenn réew mi du baax. ah loolu naa am loolu la tamit waaye bu fekkee loolu tamit nañ ko assumer rek ne man xëy na bëgguñu ma parce que ak wala je sais pas man parce que bi ñu fiy xeex booba man gis benn marabu yi booba man gisuma leen bi ñu Sonko ma maa fi nekkoon naan nañu xeex nañu xeex maa fi nekkoon <laughs> ba nga naan léegi sax damay ànd complot a Sall pour mu bàyyi Diomaye voilà pour mu bàyyi euh, euh, Sonko léegi damay complot lépp laa <laughs> naa ne gisuma kenn damaa woote sonn nga <laughs> sonn nga am na boo xam sax nga voyage woon maa dégg sa kër yaay wax si suuf exactement nga nekk di defal live damay foom kay damay dem vacances sama doom yeeg may ma nekk rek sacrifier sama lépp même vacances sax damay nekk di nekk ci rek di woote di xeex guddeeg bëccëg foo dem da ah, sama jabar sama jabar nag ba bëgg a dee dama yow kenn mënut a vacances kenn ah, ah. de parce que wax tey fekkoon ko wax màggal kon tey hmm. réew mi dem kon hmm. il faut il faut ñu liggéey damay wër àdduna bi fu nekk wër àdduna bi yëpp fu ma dem ci àdduna bi nit ñaa nga futteeku du liggéey mais loolu man mënu ma koo gis si àdduna bi fu ne ma fay dem dugg si àdduna bi ba nga ñëw Sénégal loolu nag loolu loolu loolu loolu loolu ñun dañ ci war a jublu ci a jublu en mhm. ngi koy gars yi mais leen la ci a bàyyi mhm. saaga yi ak ñu koy saaga leen tontu nu continuer bàyyi parce loolu day tax nit ñi duñu déglu live parce que am nga xam ne bëgguñu ay saaga ak yooyu Mhm. na continuer limi def rek parce que limi wax dina dugg parce que yi ngay wax mi ngi dugg. Mhm. mi ngi dugg mhm. waaw jere jef amna solo ma sha allah jere jef ci conseil yek ak waxtan content nañu lool ñu ñu njaboot gi yëpp jere jef merci ok merci beaucoup waay merci merci merci beaucoup. merci allo waaw. allo waaw ay ci bismillah bu ñu mënee gàttal rek amna solo mais gaay yañ ci suuf te bëgguma won mu guddu xam nga gaay live bi comme gaay dañ koy jëlat diko dag dagg ayca bismillah eh, giral jo ayca bismillah Assalamualaikum, frère Waalaikumsalam. salaam ak ton ziar na la Delo ziar Baye ngam jam rek ziar na ñepp ñi nekk ci panel bi hmm, encore content na trop Ñoko bok, ñoko bok. ko y a pas quelqu'un plus méritant que toi jërëjëf parce que projet bi buñ ko xé bu mu ñëw fi. fii hmm. man mun wax ngir yow ak Jiji ak Pape hmm. yéen net ñi bok ngeen ci dëgg la ndaxte yéen doon taxaw fii gudd ak bëccëg di sensibiliser mhm. nit ñi mhm. di xeexal projet bi mhm. lu ne nag wax nañ leen fi lu ne on vous a tout dit mais nag tey population bi bu ñu yeewoo laa la wax ba nit ñi tey eh, ñu am euh, réveil de conscience ñu xam lu leen war ak lu leen warul c'est à cause de vous loolu mun nañ ko wax dëgg la ndaxte yéen a ko xeex gudd ak bëccëg ba nit ñi sawar

proposé nañ ma ci lu bari dama ko dul wax rek xam nga bëgguma di wax sama personne nag di wax yu bari man xam nga man su may wax ak yéen ci <laughs> suuf yu bëree bëri yoo xam ne du ma ko yëkkati ci kaw parce que daa day am lu non dañ mm-hmm. dañu dañu dañuy que gis nañ fi ay activistes yi nga xam dañu mm. taxaw ci TikTok bi di wax bu mm. dëgg bëccëg mais ci suuf ay faux lañu Hmm. <laughs> dañu chantage nit dañ leen envoyé xaalis dañ leen defal lii ak lii lii. Hmm. te ba tey jii sax ñu ngi ci ñu ngi fii ñu ngi bokk ci ci ci projet bi ñu ngi ñu ngi ci wax bu dëgg hmm. bëccëg mais ñun xam xam nañu pendant les élections am na waa APR ñi nga xam dañ doon dundal ñooñu. am na li nga xam neexul wax rek. pour nga boo ko waxee dangay yàq benn nit kii wala leneen mais. mais on sait les gens quoi on connaît les gens ak kii acheter ak ak ñi nga xam ne kii mënuñ leen jënd ñii mënuñ leen jënd. dëgg la. Voilà, man tay tay tay tay waxuma la waxuma la sax poste député mais tu mérité hmm. même un poste de ministre là la wax. Hmm, hmm. parce que yow deug gi rek nga ngay xex. yow deug gi rek ngay xex. fanatisme fanatisme bi tay tay tay. bu bi nga boo gisee ñu Sénégal rek c'est à cause de vous quoi. te tok muy dox bi dafa yak réew mi trop trop trop trop pauvreté bi nga xam dafa nek ci ñun tok muy dox bi rek moko indi leneen indi ko. Oustaz Hady Niass nee na boo toog muy dox Oustaz Hady Oustaz mhm. uh, Hady Niass nee toog bu dox moom jeex na léegi léegi léegi jóg léegi jóg muy dox la Oustaz Hady Niass nee na ay waay waay waay alhamdulilah ba toog muy dox jeex léegi léegi léegi liggéey muy dox Oustaz Hady Niass voilà liggéey muy dox moo war a nekk <laughs> moo tax nag ñu ngi léegi ñu ngi commencé yeewu dëgg la waaw noonu la ñu yeewu moo tax boo gisee communauté toog muy dox bi mu lay xeex wala mu lay kii parce que da laal seen intérêt léegi loo koo laal intérêt rek da lay xeex. loolu rek moo ah, comme que nit ñi ah, ah. commencé nañu comprendre population nañ. dëgg la alhamdulilah ñun dañoo bëgg rek lépp luy jub jubal dëkk bi li nga xam ne koy jubal. dëgg la ñoom Ousmane Sonko ak ñoom Bassirou Diomaye Faye ñoom la ñu teg fii. dëgg teg dëkk bi ci ci ci ci kii lu ñu xaar si ñoom. mu mu bañ mu bañ décevoir quoi. dëgg la loolu lañ bëgg quoi. macha allah dëgg loolu rek. man xam nga man waaw man dama am mhm. dama am philosophie sama mhm. philosophie mooy lépp lu may def naa ko teg ci dëgg mhm. teg ko ci sama éthique de responsabilité teg ko ci sama li ma gëm man musulman la jullit laa gëm yàlla gëm yoon salaa gëm alquran nekk citoyen nekk ab républicain gëm république état dañu ko organiser tamit dama gëm je suis fondamentalement républicain dama gëm état moo tax des fois sax ñi ma àndal sax bu fekkee dañoo juum wala ñu def loo xam ne defuñu damay damay d'accord loo xam ne damay ma parce que man norme yi nekk ci réew mi Sonko daf ci war a tënku Diomaye tënku ci ma tënku ci ñëpp tënku ci man loolu laa gëm loolu koy wax léegi nag gëm boobu gëm-gëm mm-hmm. boobu ma am nag dama koo mm-hmm. wéer ci gë yàlla bi ma gëm maanaam dama jàpp loo war a am man ci yàlla la ci yàlla lay jógee bu ko teg ci yàlla du ma ko teg ci ay compromission du ma ko teg ci ay tappale du ma ko teg ci ay naxante ay complot dugguma ci yooyu voilà waaw su ma ko amee ngir yàlla am ko su ma ko ñàkkee tamit ngir yàlla ma xam ne yàlla moom ma ko fay mais du ma ko du ma ko ci ay pexe yoo xam ne mën naa ci day yàq suma éthique individuelle du ma ko def. du ma ko def. wallaay mooy yoon. voilà kon am nañu am na sa wax am na solo macha allah sedd na xol yi ngeen wax ni man daf may gën a motiver daf may gën a ñaax. day tax ma xam ne kon voilà naa continuer parce que li ma def am na solo. dëgg la dëgg la dëgg la yal na la yàlla fay ci témoignage bi parce que boo loolu tamit. am na ñu ko xam am na ñu ko xam mais duñu ko wax lànk duñu ko wax loolu lépp day am aussi kon macha allah ñu ngi lay sant baax Giral am na solo attends Idi attends ñu lay sant bu baax a baax attends merci beaucoup merci Giral jo ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay ñu ngi lay bàyyi kon ñu jàllale kàddu gi ñu ñu mbokk yëpp kon yàlla fay merci merci beaucoup jërëjëf alors euh, waaw waaw Idi maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay Idi baal ma da nga maa fekk ma concentré wu mais ñu ngi lay fay. Mariam ñëwal. asalaamaaleykum le grand le grand patriote Idi. Mariam. waaw Akhenaton maa ngi lay nuyu di nuyu ñi ci panel bi yëpp Daouda Idi yéen ñëpp nuyu naa leen des grands patriotes. ñu ngi lay fay. vraiment Akhenaton man hmm. li suma sœur boobu wax rek ak li ñëpp wax lay lay wax Akhenaton du sa bàyyi parce que yow même temps yi li nga gëj ci panel yi laay dañoo sentir benn manque bu mu am man ah dama lay suivre ci sa Facebook tous les jours sa Facebook du ma raté sa benn post wax nga dëgg wax nga dëgg Facebook moo gën a jàppandi ko am ah, moo gën a gaaw moo gën a yomb moo gën ay xat wala nga def benn post rek jour la il faut nga am temps li nga posté mais xam nga foofu post la ñun ñi commentaire sama classe gi dugg ci suuf wax et tout mais xam nga di ñuy dégg ci suuf da am na ñenn ñu nga xam ne xam nga amuñu ah. accès ci Facebook dëgg la d'accord et lecture bi dalen di ah, jafé tamit. parce que tamit nañ waxante deug ñun deuk analphabète lañu ñu nekk. jusqu'à présent deug la il faut ñuy wax ak ñom di len sensibiliser. deug deug nga wax. waay ci ci c'est très important parce que li li yàqu dafa bëri ci réew mi. deug la té pour ñu xex bi jeexagul. Mhm, xex bi jéxagul té ma ngi lay ñaanal. di nga dem assemblée nationale baa nga am lu ëpp assemblée nationale. parce que man munu maa ngi ci Sénégal man Akhenaton dama la koy wax. est-ce que est-ce sens comme un frère parce que. parce que dama dama daan toog. am yu muy métti ci réew mi. du ko mën a wax. jour bi ma la njëkkee déglu déglu la ngay wax dama ne. kii kii kan la. parce que am sañ-sañu. ak gëm yalla mm. am yaqin wax li ngay mm. wax dafa jafe ci mm. suñu réew mi parce que Sénégal muy dëkk bu naqaree waxé même dans nos propres familles da ngay wax mm-hmm. duñu jéem a comprendre parce qu'il faut que tu ailles dans un seul sens ñoom bëgguñu lu mm-hmm. contradictoire dëgg la loolu aada la aada la ci suñu réew mm-hmm. te aada bu aada bu aada bu aada bu bu yàq la te dañ ñoom maanaam mag buñ ne mag comme boo xoolee ñu naan suñu magum réew yi suñu truc et tout mag du du juum Mhm. loolu aada la lépp def noonu loolu aada la. xade xale da nga war a tëj sa gémmiñ. Mhm. ñun depuis l' enfance dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo dañ ñoo mhm. parce que amuñu droit wax suñuy euh, suñu la suñuy sensibilité. loolu aada ko. loolu lépp aada la. aada la te aada boobu nag il faut ñu écraser ko bu bëree bëri pour ñu mën a avancer.

40 mhm. ans fekk na nga nga nga def sa vie réaliser lu bëri. xam nga loolu yàlla. yàlla mhm. loolu weddi yàlla la ndax loolu du alquran. déedéet alquran li mu indi mooy mhm. mukallaf. effectivement mukallaf nag mooy ku majeur mooy puberté. kooku la yàlla ne kooku moom majeur na ki majeur. xanaa du 40 Sénégal 40 ans la ñuy majeur. mais oui ñoom loolu la ñuy te yow da ngay xool saxaaba yi àndoon yeneen tamit maanaam xam nga nit nit nit kuy wax ci diine ñu naw la ci diine jox la cër ci diine da ngaa boo yëkkatee sa làmmiñ di wax ci diine wallaahi war a wax dangaa war a wax loo xam ne buñ ko nattee ci alquran mu jàll waaye waroo wax ci sa tey Abdou Aziz Junior la dinaa tudd turam génn na àdduna ah, mos naa ko dégg ci waxtaanam mu di ko wax voilà voilà nit nit ni kilifa diine du wax luy weddi alquran alquran alquran puberté la wax mooy majorité majorité et saxaaba yi ñan ñoo gënoon doon ñan la yenent bi daan gën di àndal ay xale yu ndaw. mais diine yi ay xale ko samp. ay xale ko samp ay màggat yu Sénégal dong nga ñëw fekk ay màggat yu xubidaas ñoo diine ji. effectivement adduna bi foo dem ay xale yu diine ji xale yoo ko samp. xale ko samp xale ñoo jihaat. xale yi ñoo def lépp diine ji diine gone la du diine mag. Sénégal dong la nekk diine mag. mais diine ji gone la diine ji jumaa yi lislaam lislaamu xale la. lislaamu xale lislaamu xale la boo demee ci yeneen dëkk yi xale yi ndaw ñoo jiite parce que dégguñu diine déedéet parce que li ñu dégg li fi nekk du diine aada la loolu yàgg naa ko wax. mais bon. <laughs> man nag looloo tax ci li ngay wax ci aada di en fait il faut que ñu tinki xel le maximum parce que Sénégal. même actuellement pouvoir bi dinañu sonn torop. parce que ah ben c'est un peuple bu nga xam ne actuellement on est enchaîné par plein de croyances yu nga xam ne. pour ñu avancer problème ak pédagogie bu leer. dina dem xam-xam bu leer. dina dem ak wax ju leer ak mhm. mhm. ndànk-ndànk parce que ndar tamit xëy xëy sotti c'est ancré c'est lu yàgg la loo xam ne am na ci loo xam ne nit ñi ku mel na man di ci wax ak yéen daan ci mhm. jouer am rôle mais am na ci loo xam ne jamono moo koy sotti xam nga jamono tamit dafa am dafa am euh, jamonoom jamono dafa am moom tamit saa su ne dafa am lu muy lu muy imposer doomu adama yi dundin bu cher bi environnement bi jamono tamit day soppi doomu aadama jamono parce que tey ñoo eh. ngi nekk ci réseaux sociaux yi di live ngay wax may wax loolu dafa am lu muy jeeto loolu jamono moo ko indi donc obscurantisme muy muy réer ak lëndëm mm-hmm. euh, bu outil yi amee wax di am liberté di am ñuy def ndànk-ndànk di wax di jàng di dem ci école yi ñi xam ñi di am xam-xam ñuy waxtaan di diisoo comme nii ñuy def nii day ñuy def mm-hmm. voilà voilà maanaam bu ñu ko forcer mais nañ koy nañ ko tekki temps ndànk ndànk rek voilà mu ngoog ni ngi daañu gindiku bu soobee yàlla incha allah moo tax bul mësa bàyyi yal na la yàlla def député baalu raw loolu laa lay ñaan euh, dañ dañ la soxla dañ la soxla et en plus de ça ah. même bu ñu jógee ci lii man am na benn euh, lu nga xam ne dama ko mës a yàgg bëgg te gëm ko mm-hmm. mooy la banque de la diaspora parce que ñun diaspora bi waruñoo doon benn affaire bu nga xam ne dañoo mhm. wax di toog rek di nourrir suñu famille yi. ak parce que on peut on peut on peut développer le pays autrement. inshallah allah loolu moom bopp. loolu moom wax naa ko ci live yaakaar naa keroog bi ñu falee jomaay. def naa benn audio bu ma tasaare ne il faut que ñu liggéey ci naka la ñuy def ba épargne diaspora bi. ak avec ak envoi yi ñu yónnee Sénégal ñu di ko lekk ak yooyu ñu fexe ba jël ci benn benn benn code part boo xam ne dañuy mhm. créer benn fonds d'investissement mooy banque bi ngay wax ne maa ngi ak cabinet d'ingénierie financière boo xam ne ñi ngi tëgg projet bi a naa ko ngi ba ngi avec benn cabinet de d'ingénierie financière pour que ñu def la conception mhm. de tëgg projet bi de bout en bout on a validé la première phase la deuxième phase on est sur la dernière phase qui est la mhm. dernière phase du projet dans ce domaine là bu parlez incha allah rabbi naa ci naa indi autorité yi diaspora bi mu une nouvelle orientation euh, politique du gouvernement parce que ce sera un partenariat entre l'État et la diaspora dans un cadre formel officiel avec de nouveaux suivis des objectifs euh, un partenariat euh, public-privé extrêmement puissant pour mobiliser l'épargne de la diaspora les envois de la diaspora qui tournent autour de 2 milliards c'est très important parce que Il y a il faut il faut que parce que loolu moom mooy indi développement en plus de ça nous ñu dañu xalaat tamit pour notre pour nous, parce que on y a c'est nous qui faisons tout pour nous que ça soit pour construction, que ça soit pour les, rapatriements de corps, que ça soit pour tout. Tout ça, on le fera, Inch'Allah. Nous am ñu nous ci dit donc yooyu tey buñ ma bu ma nekkee candidat ci thème yooyu la campagne j'ai des thèmes de campagne pour la diaspora yoo xam ne mhm. bii la bokk ak yeneen yoo xam ne maa ngi ko tënk bind naa ko yëpp mi ngi taxaw ma si je suis déclaré officiellement candidat je ferai campagne sur ces thèmes là yàlla na la ko yàlla ko dégg incha allah merci encore de de la encourager remercier sa famille aussi parce que c'est pour il faut avoir une patience <laughs> surtout <laughs> c'est pas facile merci beaucoup <laughs> Alors, le suivant, je pense, c'est Daoud. Allez-y, Daoud, merci. Il dit, je pense, qu'il est parti. Il dit, il est parti, je ne l'ai pas vu partir là. Il dit, mon, il reste nulle part. Hein, il dit, allez, Daoud. Salam alaikum wa rahmatullah. Alaikum salam. Doton, maa ngi lay nuyu di la ziar bu baax a baax di nuyu. ñu ngi lay dégg yow. ñu ngi lay fay ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay. soxna si mujjee waaw man presque li ci ëpp say post laay liir ci Facebook bi. waaw dëgg la. yàgg dégg say contribution ak ci lu bare bare bare bari. macha allah dëgg la bi ñu mus a nekk ci Pastef mooy dañu nekk mus a nekk homme de l'ombre parce que man li ma mus a gëm rek mooy jëf. dëgg la. laa mus a gëm man que xam naa ni Sénégal réew moom bu doon ay wax mooy développé la am réew moom Sénégal benn réew du ko raw. dëgg la. ndax réew mi dañuy xëy dañuy bis bu ne da ci wax rek la ñuy nekk. la. fekkee nit ñi gën a xam bu baax a baax a baax a baax ni réew mii ñu nekk Sénégal dafa am noo xamante ni moom la ñu tabax réew mi. Mm-hmm. waaw tabax gi ñu tabax réew mi nag ni ko genn góor waxee woon rek mu El Hadj Ibrahima Sakho mu ni Sénégal mm-hmm. diine dafa mm-hmm. xam-xam. bu jiitu woon ci xam naa xam naa yu bare bare bare bare nit ñi dañ ci yeewu. yàlla yërëm euh, ne mooy sunu référence mooy sunu lépp. ki nga xamante ni da nga ko def sa référence def ko sa lépp nag. moom li mu li mu jàngale ci nga war a njëkk a tegu ndax yonte bi dafa wax ni adabani rabbi fa adibtu yàlla moo ma yar ma yaru mm-hmm. ni adabani rabbi fa axsana tahdibi yàllaa ma yar ngën gaa rafetinu yarin mm-hmm. réew mën nu ko développé mu ko Sénégal te yaruwuñ mm-hmm. te chinois yi ñoo ñu ëpp fuuf bu dee bu seen population matul milliards jege na ko japonais yi noonu discipline bi nekk ci ñoom danga naan ñii lu tax lu tax lan moo tax lan loolu question yooyu ngay laaj xëy na assurance yi seen seen euh, seen li ñu teg ci wàllum euh, euh, comment dirais intervention ci ci boo defee contravention wala nga def délit wala nangam yooyu ñu teg yëpp ci kii moo lay delloowaat nga tax nga yaru. dëgg am lu ñëw dal ci sa kaw. Mm-hmm. gis nga borom ñu woote doomu aadama yi naan leen kaay leen jaay. Mm-hmm. fii sax yàlla li mu bëgg njëkk woote doomu aadama jaayante ko mooy alal alal dafa foor ci nit. amuna muna innama innama amwalukum wa awladukum fitnatun xam nga xam nga xam nga loolu yàlla ku jàppalaat yàlla nee na alal ak doom fitna lay doon ci yéen nee na bu ngeen bu ngeen bu ngeen bu ngeen moytuwul seen alal ak seen doom yi day doon fitna ci yéen te boo xoolee àdduna bi fitna bi yëpp koo gis moom ay jafe-jafe rek ñaari yi la bu dul alal di doom maanaam doom doom doom ak alal dafa sax ci xol yàlla mi ko bind moom xam na ko moo tax moom ci alquran innama amwalukum wa awladukum fitnatun mooy li ngay wax ni ko gis loolu la ko sonal bu ko defee ñu xam ne Sénégal réew la moo xamante ni tey bi ñu amagul indépendance mun nañ ni ci ci Ngalani Diouf ba ci Blaise Diagne ba ni ñu amee indépendance Senghor njëkk fee ne président ba fii ñu agsi tey mhm. réew mi jàpp naa ni tey ba ñu dalalee dox ba tey euh, ñuy costume ko cravate làkk ceci cela monsieur wi mhm. monsieur moo te réew mi demul fenn kon war nañu xoolaat bu baax a baax réew mi Mm-hmm. tey boo Sénégal ministère yeeg foo mën a dugg tey Sénégal li ñu def ci ay colloque def ko ci ay séminaire def ko ci ay ay symposium yu dul jeex la te yooyu yëpp mi ngi ci tiroir yu ñu rangé mm-hmm. dégg naa ci sax ba fii Sénégal jël si conclusion yooyu dem ci seen réew di ko fa doxal kon ñun njiit yu baax lañu amul ah. woon nag réew mi daal li ñu mas a manqué yëpp am nañ ko léegi nag li ñu li li yàlla mosu def ci réew mi mooy président bu baax bu jub yàlla defal nañu ko amatuñu lay maanaam ñun Sénégal lii bu baaxul dootul baax daa iman lu baax lay amatul de njiit yu jub njiit yoo xam ne mhm. seen làmmiñ ñu ko génnee dëgg jub transparence ak bëgg réew mi la ñuy woote ak sacrifice wu njiit yu mel noonu mosu mhm. fee am maanaam lii maanaam cool cool yëru gudd de ñi jiitu ñoom dañoo dañoo wane yoon wi ba noppi nekk ca yoon wa loolu moo fi mosta am mhm. li des mooy ñun ñii ñu takku ànd ànd ak ñoom nekk seen ginnaaw fu ñu ñu joxoñ fa Mm-hmm. mooy discipline bi ngay wax ci japonais yi discipline bi ngay wax chinois yi dañoo laaj réew mi ñoo am discipline te discipline mm-hmm. mënta am ci réew lu dul autour d'une seule autorité am réew mm-hmm. mënta am fukki buur benn emir lay am réew mënul na nekk réew mu am ay kilifa yu bari ku nekk yor sa pouvoir loolu réew mu ko am du dox man gëwma loolu dama gëm autorité wu chef de l'état ki jiite réew mi kooku moo yilif ñëpp bu jubee dañoo dañ ko war topp rey ko mais mun mënuñoo am hmm. fukki chef benn chef lañu war a am loolu mooy discipline diine ji noonu la ko yàlla nase ñi dem chinois yi noonu la ñu nasee japonais yi foo dem ci àdduna bi ñu suqali ko dañooy am benn autorité bu jubee nag hmm. moom am nañu chance bu dëngee yàqu nañu. Hmm. muñu mosuñoo am bu jub ñi ngi soog am bu jub coow li ñuy wax yëpp projet bi jub jubal jubante bi mooy lay jiit bu jub ñu ëpp ci askan wi xam ko gëm ko ànd ak moom topp ca ginnaawam bu jëkkee tànkam ñu yëg tànkam bu tegee tànkam ñu teg tànkam réew mi suqali ko ci suqali ko bu gaaw dañuy am discipline. lii rek la amul hmm. leneen li ci yëpp dañuy wax dañuy wër wër loolu mais réew moo xam ne dañuy am fukki junni kilifa bu ki bu kii waxee jëm fii kii wax jëm fee kii wax réew mi loolu pëcc xoo jaxasoo loolu mënuñu cee tabax ak soqaliku mënta ne xam nga moo tax alxuraan njëkk laa wax ni la yu zakki wa yuallimuhumul kitaab wal hikma dafa <laughs> ah, doog a dugal xam-xam <laughs> bëri na lu yàq ci réew mi Sénégal la ko yàq mooy borom xam-xam bu ñu defarul jikkoom te loola ñu ngi ciy topp ay at di ko defar ba tey mun ñoo fexe ba loolu defaru waaye ni nga ko waxee rek yàlla dofal na am na njiit loo xamante ni jublu jublu wax naa ko ba dem ci benn benn waay benn live ma ni ko Sénégal waxuma la sàcc milliard moom jeex na fi million sax nit ñu métti koo sàcc ci biir réew mi kon jub moom tegu waaw ay mi ah, ay mhm. nii na Omar ibnu Abdou Aziz gis am li mu yoree ay mi nii na gi jub gi mu doon doxal dem na ba mala yi sax gaynde bu lekkee ba suur kéwél mën na ko romb nii di dox te du ko laal mala yi sax dañoo dem ba ànd ak moom ci jub googu maandu ji mhm. nga xam ne maandu mooy mooy mooy lépp mooy lépp ñun bi ñu xamee loolu ci la ñu jugee taxaw parce que projet Pastef bi man yàlla dogal na nekkan naa ci benn cabinet di liggéey euh, ak ay inspecteur des impôts bi ma déggee coowul Ousmane Sonko mbiru Ousmane Sonko maa ngi ko njëkk a suivre bi muy def benn présentation boo xam ne Cheikh Yirim Seck place de l'indépendance de la martyre mhm. des questions ma gis waa ji bi ma ko gisee nag ci laa commencé gëstu mais inspecteur des impôts yi ma xam koo ci laaj mun la ko jub la ko am diine la ma ne nag waa ji jub na am na diine waaye nag mën naa dugg ci lu dugg ci lu jugul man laaj projet Pastef bi nga xamante ni mooy parti Pastef ma def ci ay gëstu xool ba gis ni waa ji li mu dugg lu wóor la ma ne comme waa wóor na te jullite na ci li ñu seede ci moom te dugg na ci lu woon naa ñëw soobu ci ñoom ànd soobu ci ànd ak ñoom ci liggéey bi ma dugg Pastef mm. man bi ma dugg mm. Pastef juste rek ci la ma état recruté ci benn programme bu ñuy wax programme de développement de la microfinance islamique au Sénégal ma nekk mm-hmm. intendant bi ma ñëwee nag ñu mm. xam Pastef laa nekk projet programme boobu nekk naa ci pendant cinq ans fu ma dugalee congé ñu rejeté ko ma doo am congé ah waaye boobu waaw boobu teewul fekk yàlla dogal na sama jàng àggoon na fenn ma ne naa dem fay ci la ma am ci suma salaire gus ñëw ma dem fay pour continuer sama jàng Mhm. ma nekk ci ba yàlla dogal bi ma bi ñu nekkee xam ni xam ni ànd naa ak Ousmane Sonko dëgër ci parce que dama daan boo duggee sama TikTok sama TikTok di gis yu bari yoo xamante ne dama ko daan def ci ay live ak sama Facebook. ne honorable pourquoi vous n'êtes pas choisi xaw ma parce que waxuñu mm. lu tax ne ma lii moo tax jëluñu la mais wax tontu wuñ ma. fa mm. naa ko fa ca Pastef ba nekk France Pastef France waaye ba léegi tontu wuñ ma waxuñu ma dara tontu wuñ ma yeeyuñu yàbbiwu ci oh xaw maa ngi ci yem. Hmm. ki laaj laaj boobu waa continuer euh, Daouda maa ngi jégalu. waaw bi loolu amee nag ma nekk ci programme bi d'ailleurs comme ni nga ko waxee noonu am na yu ci bëri yoo xamante ni yow xam naa ni dund nga ko keneen dund ko keneen dund ko musuñu musu musuñu maa nangoo may congé ba bi sama soxna amee doom def césarienne yor hmm. ñaari doom yoo yàlla dafa def seen seenum jur sorantewul ma ni comme ñaari xale lan naa ñaan congé pour mën a ñëw dimbali soxna si téyel ko ñaari xale yooyu mu mën a hmm. féetewoo bébé bi na ci ma dugal demande conseil ñu defal ma ak affectation Kaffrine boobu nen na Fatoumata Tall moom moo fi nekk. Mhm. ma ñëw ñun affectation Kaffrine. affectation boobu sax dem naa ba vérifier ko gis ne ndekete signature ba sax dañ ko falsifié faux usage de faux sur un document administratif la ñu def. ah si ba j'avais saisi initié pour yóbbu leen chambre administrative cour suprême far yàlla dogal suñu suñu suñu suñu ngu euh, suñu régime bi gagné gagné le pouvoir ma ni mhm. jaratu ko. donc muy jaar jaar yu ci bari yoo xamante ni ñi jaar nañ ci. man bi ma bi ma xamee projet Pastef bii ci laa nekk Dakar liñ ci war a xeex yëpp muy juin deux mille vingt comme ni nga ko waxee président Ousmane Sonko bi ñu ko fi convoqué mars deux mille vingt quatre que zalika naka noonu mën naa ni am na yoo xamante ni mun naa ko partagé ak yow ci suuf incha allahu rabi di nga di nga xamal sa bopp lu baree bari. ñu xam ni dañ ko lan dëgg rek moo taxoon ñu di ko xeex ndax dëgg fu mu mm-hmm. taxawul. dama ni jàmm du fa am dëgg fu mu taxawul développement mënu faa am. comme yalla dimbali nañu nak ba jot ci mbir mi wax fa deug yalla man limay wax rek tunu rupture totale lañu soxla. man nee soxla soxlawu jomay ci assemblée nationale soxlawul ay députés Sonko ci assemblée nationale. Mhm. député yi ñu ay député du peuple député Sénégal. Mhm. ño xamanteni ni lepp lo xamanteni dañ koy dugal biir assemblée fay mhm. nekk lu man ci Sénégal xol Sénégal tank classique yi ni ñuy ruiner la population. ak ay pré buñ la ci dugalee wala nit dee bàyyi banque ci xaalis bi balaa cee njabootama jot da daj lu nekk liñ war a redresser ci réew mi bari na ay kilifa yoo xamante ne dañuy créer ay entreprise ni man damay defar tali génie civil laa def te kilifa googee ab sëriñ la appel appel sax amu ko bu mm-hmm. nee soumissionné bu ñu bu ñu déggee appel d'offre ci benn marché état ñu daw soumissionné ñu jox leen DAO bi dossier d'appel d'offre bi ñu dem abu matérielu jàmbur présenté ko nga jox leen kii boobu ñoo war a defar tali bi ñu sous-traité ko ci suuf lekk la ñuy lekk yooyu war a Sénégal li ci kii defar <laughs> yow xam nga ne xew de nañ ko nañ ko gàttal lépp lépp xaju fi yow yow yow yow naa la jëlaat ci live yow yow dañu defaat live maag yow ci ci appel waaw loolu ah, nañ ko gàttal yow lépp xaju lépp mën ñu ko wax daaw de yow yow yow yow am na fóotee yow fii fii metti fii metti am na foo ci téye ma sa candidature moom dama ni lu ma mën a def bu Akhenaton candidature am jàllee ah. moom ci <laughs> diaspora bi ci kii yàlla baax na daal yàlla baax nañu nañu ñaan rek euh, te rafet njott ci njiit yi ñoom kilifa yi ci kaw ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom yàlla baax na nañu rafet njott ci ñoom rek yàlla baax na waa waa Paris ñoom ñoo tànn waaye bu ñu tànnee nag dañ koy parce que parti bi daf ne woon na ngeen waxtaan ba juboo su ngeen jubooyee ngeen tànn ñi ngeen tànn yónnee ñu muy ñetti candidat yi fi war a génn parce que ñetti candidat ñooy nekk ci ci département bi ak ñetti titulaire mais ñoom dañoo tànn ñu ëpp ñoom li ñu tànn dafa ëpp te dañoo teg ay yeneen i critères yoo xam ne parti bi waxu ko dañoo def sax ay mbir yoo xam ne daal bokkul ci note bi parti bi génn ñoom dañ koo jalgati def leneen mais loolu lépp après bon day delluwaat nag léegi ñoom lañu tànn nag day dem dakaar bu demee Dakar nag léegi nag dafa am ñoo xam ne dañ ciy liggéey xool ndax ñoom li la ñu tànn ni ñu ko defee méngoo na ak li parti bi wax waaw wala déet su méngoowul ak loolu parti bi mën na ko dàq defal def leneen. waaw. waaw parti bi mën na valide mën na valider li ñu def ñoom comme mën na ko dàq ndax it nag parti bi dafay dox ci ay dafay dox ci ay texte texte yooyu moo newoon candidat yi li ak lii la ñu war a joxe nii la ñu war a mel ak ñoom hmm. nag euh, li ma gis ñu def ko ci seen PV bi daal am na ci lu bari loo xam ne méngoowul ak loolu léegi nag loolu après du man maa koy décider wala kenn parti bi tamit am na ay structure ñoom ñooy dëggaloo Ousmane Sonko nit ñi wóolu nañ ko am nañ ci moom confiance ak njubam nit ñi xam nañ ko te yaakaar nañ ne du def loo xam ne teguwul ci yoon moo tax nañu ko bàyyee mbir mi moom dina ci def li ci war yaakaar naa lu mu tànn tamit ñu xam ne loolu la tànn ñu tànn ñu du tee ñu campagne comme dof bu ñu ñàkk ñoo tànn tamit du tee ñu futteeku fexe ba am majorité parce que majorité boobu soxla wuñ ko pour man pour yow dañ koo soxla pour sàcc yi ñu jàppale dañ koo soxla pour réew mi dox dañ koo soxla pour le don de soi loolu tamit lu ñu mm-hmm. am am yéene bëgg-bëgg nekk député tamit du tax ñu ñu ñu ñu jël projet bi ak intérêt projet bi di ko compromettre déedéet projet bi moom liñ ci daj man boog li ma ci daj moom du ma ko man moom du ma bokk ñu ko yàq xalaatuma ko

kon japp na ni tay ni ñu xex ba projet bi ag fi ni nga ko waxee rek kenn du ci décourager kenn du ci dellu ginaaw lu man xam nga projet bi dafa nekkul sa so ko jema mhm. dañ ko wutul projet bi kenn ku nekk actionnaire nga ci ñun ñepp ay actionnaire lañ motax moo ku ko baye da ngay baye sa wal rek xam nga dafa dem ba kenn ku nekk sa mbir bop la loolu motax mu am doole ku ci nekk da nga ku ci nekk da nga ci am patch motax bu ko kenn baye lu ngeen ti dégg lu mëna xew bis bu xam nga ak chaîne la chaîne mom bo daggé benn mayo bi chaîne gi day yaq motax bu benn mayo dag ak lu mëna xew bu ñu mhm. reyanteeg xulóog reyanteeg mën nga def lu ne waaye jàppal ma jàpp rek bu kenn ba du noonu daaw de kon ñu def noonu ñu bàyyi gars yi ñëw sa wax am na solo yow xam naa il faut nga ñëwaat ñu mën a yaatal incha allah jërëjëf jërëjëf daaw de am na solo sa am na solo ñu bàyyi ñeneen ñu ñu agsi parce que ren gaa ngi fees ci suuf lool gars yi bari na ñu ngi kaas rek <laughs> daaw am na solo merci beaucoup nu ñu njaboot yëpp jërëjëf merci merci alors y a qui encore qui vient Kachor je pense u femme de femme waaleykum salaam ayca bisimilah professeur man sama wax moom du bare awal lu mu wax rek jeexal na wax ji gis nga ah. bi nga ne da ah, ngay nekk ah professeur dañ koy xeex parce que pourquoi ah. euh, mbiru sëriñ yi awal mu wax man nii laa nii laa ko xalaatee nii

man daal eh. information amatuma si dara ak kenn doon déggatuma ko. <laughs> da rek kenn mësul wallaay en tout cas on est derrière awa moom lu ma bëgg a wax awa wax na ko lépp awa wax na ko lu mu wax moom franchement et ça fait plaisir aussi le plaisir est partagé que Dieu te garde ah. ainsi la famille amiin yàlla yàlla sàmm ñëpp am ndam en na c'est une fierté en tout tout ah, cas ne ko daal moom na ma ne ko na ma baal àq parce que am na si ñoo ñi dañ naan ma sama jëkkër lii ñi naan sama jabar yi lii man am na sëñ yoo xam ne moom muy di xoolal damay dem tëdd dana déglu nañ ma baal ah moom kay àq kay am na ci nañ ma baal àq ñoom ñëpp rek parce que man maay wax nañ ma nañ ma baal àq nañ ma baal àq ñoom ñëpp rek am na boo xamante ne sax bi nga doon def nga ne tey gàmmu la ma ne tey mu tëdd boobu daaw la je pense daaw la gàmmu daaw bi la waaw ma ne tey dañuy gàmm ak Akhenaton mu ne gàmm ma ne ko waaw tey dinañ gàmm tey. <laughs> wax nga dëgg de même ñu bari woon nañ ma dama il faut nga gàmm mais. ah oui mais pourtant parce que man man xam nga je suis de la mm-hmm. Casamance. affaire sëriñ yi xaw ma ci dara. mais yow yaa gindi yaa ma li nga wax yëpp ma ah kon nii la passé bi nga waxee wax kii fan la commencé <laughs> yoof et tout mosuma ko dégg fenn ma ne ko ba tal moo dëgg la lu muy wax boo mm-hmm. ko dégg si benn tante. wallaay. dëgg la a la yàlla baax na jërëjëf merci beaucoup. merci merci merci femme d'affaires nuyul ma sa merci beaucoup. de préfère des fois sax di sa kër dugg mais bon affaire député bi moo tax. waaw dëgg la dëgg la merci yàlla gudd fan am wér gu yaram. amiin amiin amiin yàlla defal ñu ko ñun ñëpp. yàlla defal ñu ko ñun ñëpp amiin njaboot bi nag nga jéggal njaboot nañ jéggal nag. amul solo ah ñoom de ñoom dañuy def doon choix ñoom it par force ñëppay doon choix amuñu choix. en tout cas. <laughs> Je pourrais tout le monde merci beaucoup merci ok professeur allez à très bientôt merci beaucoup merci au revoir au revoir alors on a heures, je pense ah, officiel <laughs> imam Aïe, bismillah la ziar la la nous ñu ko yalla boole. Euh, ñun c'était depuis 2019 jusqu'à présent. donc euh, déglu. en mhm. tant que en tant que des patriotes mais en tant que des panafricains. comme ni koy y a des panafricains y a des panafricains. <laughs> notre panafricanité a été motivée par vous. Euh, vous avez joué un rôle très important. Mm-hmm. Euh, sur la jeunesse incha allah renforcer nga ñu xam-xam ndax daanaka liñ doon déglu ci maam Abdou mm-hmm. doon te mm-hmm. woon jamonoom dégg nañ ko ci yow macha allah liñ doon dégg ci Cheikh Al Ibrahima Niass te fekkee jamonoom dégg nañ ko ci yow ndax xam-xam bi ngay joxe doo dem ci école bañ la wax la ko doo dem ci tànt ba dégg ko fa di la wax ne nag ñun bëgg nañ la te yàlla rek tax tey mhm. ci ay booru 17 heures ñu ngi doon def vidéo boo xam ne YouTube mhm. si sa candidature lañ doon waxtaan est-ce que si sa dama mhm. ko jéem a télécharger ba sonn pour euh, partager la ko TikTok mais munta munta téléchargement munta jàll mais mu ngi si benn chaîne xawma ma YouTube euh, sama baat gisuma ko nag dama doon wax ne candidature yëpp ñaara ma ci intéressé mu candidature maître Abdoulaye ak candidature imam Akhenaton. ndeysaan macha allah. <laughs> képp kuy sénégalais. muy mhm. dans la diaspora ak foo mun ci nekk. Mhm. candidature bob c'est c'est une candidature à soutenir. ndeysaan jërëjëf merci beaucoup. keroog ba nga waxee tu fais partie euh, tu as déposé candidat tu es candidat à la candidature clair mhm. Alhamdulillah ala kulli exactement tout à fait. damay wax murid dañuy faral di wax naan sëñ Muntaxa mhm. sëñ Tuubaa bu sotti la waaye man it damay wax ne axee na toon Ousmane Sonko mu sotti la est-ce que est-ce <laughs> macha allah voilà donc waxuñ la pour vous jeter des fleur wala pour parce que xam naa ne sax yow tu n'es pas ça di ku lay jëy ak yooyu te ñu aussi nekkuñ ci yooyu dëgg la mais daal xam nañ ne billahi lazi laa ilaha li gars yi doon wax ne yonent bi doon wax ne utlubul ilmi walaw bi chiini wala a ne talabul ilmi min al mahdi ila al lahdi dañuy wax dañuy def suñu suñu wuti suñu xam-xam si keppaaru imam Akhenaton ah. bokk nañ ci ñi la tuddee imam a imam bi wax man kay loolu lañ may ma am ci ay turke man dama dem xaa man <laughs> ah ndeysaan yàlla yàlla xeeb doole ñu jëriñu ñu ñëpp rek ñu ngi soutenir sa candidature di hmm. ñaan yàlla muy mottali yàlla na ko yàlla mottali hmm. parce que nit amul lu dul bëgg-bëggam mais yàlla mooy mottali en effet te lépp lu mën di am rek lu mën di xew rek ñun ñëpp on est des patriotes nañ xool ci Sonko bañ ko xañee candidature am daa pousse keneen donte ñun moom rek lañ gëm dëgg la loolu mooy leer waaye yow nit ñi dañuy jàng ci yow macha allah ndeysaan fi may daanalee rek mooy yow xam-xam ngay waxtaanee xam nga. dëgg euh, gis nga yonent yàlla aadama ba ko yàlla bindee ñaata def na ñaata euh, waxtu ñaata at sax laay wax ci ron yàlla. Mhm. te yàlla waxul benn yoon malaaka yi kaa leen sujjootool ko. waaye mhm. keroog ba mu jëlee xam-xam def ko ci bopp bi rek. Mhm. lañ wax malaaka yi ne leen ñëw leen sujjootal aadama kon jëm ji taxul taar bi taxul waaye xam-xam bi moo tax. lii ma la wax ni waaw lii ma la wax ni moom laa wax ci live bii boo boobu su ma la ko mënoon envoyé dama koy envoyé mais boo ko dégloo. Mm-hmm. deuxième partie yëpp ci yow laa ko consacré. di wax ci yow. macha allah wax maanaam te donte xamante wuñ. Ah, donte rien xamante rek waaw sama baat yi. sama baat yi parce que yaa ngi wax yaa ngi wax di gindi nit ñi. yaa ngi wax di gindi nit ñi te nit am na ñu ngay gindi sax xamuñ leen wax naa sa Akhenaton ñun ñu koy di jëriñu ci moom photom rek lay gis donc personnalité wala personam am importe peu moom la bëgg nit ñi jëriñoo mooy nit koo xam ne yàlla du koo bind mu ne kaay leen jëriñoo ma mais moom bi jëriñoo am na xaalis bu ko bëggee am na kër am na fu dëkk ñun ñi nga xam ne ñoo dëkk ci gëbla gi fii ci Sénégal yoruñ kër dañoo lu yoruñ xaalis yoruñ tus mm. moom nag dafa bëgg mm-hmm. ñu àdduna tey ak ëllëg baax est-ce que est-ce que xam-xam bi nga def ci ñun dinañu permettre mm-hmm. ëllëg yow mal xiyaam bu yàlla ubbee àjjana yi ne hey yéen borom xam-xam yi kaa leen dugg buñ fa mm-hmm. duggee rek mën nañu yàlla ak yow la ndax def nga ci ñun xam-xam ak motivation ak gëm-gëm bëgg sa réew ndeysaan ndeysaan ndeysaan bëgg sa réew baax a baax c'est touchant li ngay wax c'est Seydina Mouhamad man nag ñu ngi may wax Ndiaye le justicier may maa ngi tudd Mamadou waaw Mamadou Moustapha Ndiaye yàgg nañu xeex yaa wàcc sur le terrain allah dem ci dem ci lacrymogène yi su ma demee di naan lacrymogène maag sama benn xarit bi ñuy wax Abdou Aziz dem nañ ba Mbàkke mhm. jógee Mbuur dem Mbàkke topp Ousmane Sonko ci lacrymogène yi jógee Mbàkke dem Dakar képp mm-hmm. ñu topp ko mag sama waa waaw lépp rek yow ñu branché xam nga Ousmane Sonko yow branché wu la de Ousmane Sonko dafa ñëw yokk sa volt mais dafa fekk nga branché wu ba pare <laughs> mais yow yaa ñu branché <laughs> est-ce que Ndiaye kàccoor bi am na solo sa wax de ca dëgg-dëgg macha allah c'est trop fort waaye nag bon yàlla yàlla xeeb dolli yàlla may ñu ndam ci li ñu bëgg euh, fal nañu njiit yu jub yi euh, nañ leen dollil euh, li nga xam ne moo leen manqué muy assemblée bu am majorité bu baax bu qualifié ñu mën a nag ñu mën a soppi réew mi te amuñu sikk sàkk mi incha allah bu ñu guddee fan xanaa ñu dee waaye bu ñu déewul moom bu ñu déewul moom bu ñu déewul moom Sénégal day soppi ko ci bu gaaw sax loolu moom loolu moom yàqin la loolu moom du lu ñuy werante am nañu pas-pas bi am nañu yéene bi am nañu xam-xam bi am nañu sacrifice bi lépp pare nañ ko pour mu baax incha allah rabbi xanaa yàlla jëluñu fi ñu dee waaye bu ñu déwul moom incha allah Sénégal lay soppiku yu soppiku bu gaaw loolu a wax yow xaju xaju fi la da ngay ñëwaat da ngay <laughs> ñëwaat noonu da ngay <laughs> allah rabbi incha allah barakallah jërëjëf yàlla na la yàlla fay yàlla la yàlla fay jërëjëf amin ya rabbal alamin jërëjëf alors ubi antenne bi de defa fois ndeysaan da ngay baxna ki nak naruma ko won mais bon ndeketee di len di deglu nit ñi aussi c'est important parce que da ngay deg lo xamne ne ko sax ndort da ngay xol li rek ñi wax say wax di def ay live di def ay témoignages tax te xamuñu la ndeysaan di lamine dogal sa lamine dogal la deg motax euh, lamine dafa doy war lamine euh machallah yalla yalla xeb dolli kontaan nañu Mamadou aca bismillah waaw salaamaaleykum akana toon hmm. maa ngi lay jaar sama sëriñ laa lay wax sa sëriñ maa ngi lay jaar bu baax ah yow man da ngeen maa bëgg a sëriñ man da ngeen maa bàyyi ma nekk ak ay ah, taalibe rek ñuy ñuy jóge ko daanu ak en fait ah, akana toon yi nga sa genre eh, ay hmm. genre Ousmane eh, Sonko en fait ay siècle ba siècle la ñuy feeñ te yow dama bokk si nit yooyu maanaam li ñu naan éveiller les consciences tu hmm. fait partie des gens qui qui sont qui nous a éveillés quoi être conscient de nos jours et pour le futur à venir loolu yow da ci bopp man sa mbër si bopp. loolu yàlla la. sant yàlla dëgg parce que man li ma wax rek. Sénégal yàlla dafa bëgg Sénégal dafa yàlla sénégalais la sax boo xoolee. ndeysaan. waaw parce que li ma wax rek man euh, je suis pas hypocrite de ma topp mhm. n'importe aw ma saa sëriñ yàlla def na man aw ma sëriñ man samay waajur laa am ñoom rek laa mhm. bëgg ñoo ma gën a lépp